réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. les Patriotes TV. balaa meeting bi de commencé foofu noonu sa école ACPES si la ñuy jot ay xibaar yu bëree bëri di circuler fi nga xamante ni moo di si réseaux sociaux yi comme ku waa ne ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko daal dinañ koy bàyyi ba mu génn fi nga xamante ni moo di si prison boobu waaye nag bu ñu sukkandikoo si bi nga xamante ni moo di Ayib Daffé. ba fay ngeen baal ma ba fay moomee nag nekk si groupe Walfadjri moom moomee nag euh, posté benn Twitter di xam le ne ki nga xamante nii nag moo di président Ousmane Sonko moomee nag génnul ndax loolu lépp nag fii ak néew si la maanaam nekkul xibaar yoo xamante nii yu wér la moom mii nag nee na xibaar bi bu sukkandikoo si ki nga xamante ni moo di maître Bamba Cissé kii di Ousmane Sonko ba léegi génnul mu ngi si prison bi moom ak ki nga xamante ni moo di Bassirou Diomaye Faye donte doon nañ dégg nag ki nga xamante ni moo yoroon page Facebook bu Ousmane sonk bi doon wax naan Ousmane Sonko génn na wala génnul. waaye bis bu génnee wala bu génnee laataa meeting bi di jeex dangeen ngeen ko gis en direct fi nga xamante ni moo di si meeting ba même Bassirou fay bu génnee balaa meeting bay jeex tamit di ko gis en direct foofe noonee Bassirou Diomaye Faye moomee sax mën nañ ne temps d'antenne bi nga xamante ni am na ko war na ko am foofu noonu sa RTS waaye RTS kat nee nañu moom mii nag ginnaaw mandataire am ba mu fa demee enregistré ba noppi enregistrement bi nag nee nañ ko jàllale fi nga xamante ni moo di RTS nag ki nga xamante ni moo di candidat bi nag kenn mënu ko remplacer si place boobu